Thank you. asalaamaaleykum téléspectateur Leral TV dal leen jàmm ci seen biir émission leeral santé tey nag leeral santé mi ngi leen ñëwal fi nga xamante ni mooy post de santé bu Liberté de ñu ñëw tey setsi si kii nga xam ne moom mooy euh, chef de post tudd euh, Khady seen di madame Nia mu nekk sage femme d'état fas yéene waxtaan ak moom ci lépp li nga xamante ni moo ëmb wàllu jigéen wérul ci naka la koy saytoo commencé ko ci accueil bi ba lii nga xamante ni moom mooy euh, wasin moom mooy buy buy dem ba buy wasin loolu yëpp lañ fas yéene waxtaan ak ñoom gën leen andil ay leeral ak ay réponse ci sujet yi nga xamante ni moom ngeen ñu yàggalaaj ñu ànd dem seeti ko Bonjour docteur, vous allez bien? Bien, merci. Ça ngi sant alhamdulilah nag liggéey bi. Ça va, merci beaucoup. naka liggéey bi non non sonn nañu sonn nañu merci beaucoup merci. salaamaaleykum téléspectateur u Leral TV. dal leen jàmm ci seen biir émission leeral santé tey nag leeral santé demul fenn fudul euh, fi nga xamante ni moom mooy poste de santé bu Liberté 2 fii leen ñëw fas yéene waxtaan ak euh, sunu sage-femme d'État ci wàllu li nga xamante ni moom mooy wergu yaram jigéenu wérul wergu yaram jigéen wérul nag bu ngeen ko déggee li mu ëmb bari na de jigéen wérul ñëpp xam nañ ni grossesse dafa nekk loo xam ne euh, mënul ñàkk ci jigéen raw ci doole mu nekk lu metti moo tax ñu bëgg a ñëw waxtaan ak moom laaj ko naka lañ war a saytoo jigéen wérul euh, naka la jigéen wérul war a mën a toppatoowee boppam ba mën a dugg ci li nga xamante ni moom mooy accouchement bi ñu ñëw seet si ki nga xam ne moom mooy madame ñaa madame ñaa ñu ngi lay nuyu di bàyyi nga présenté wu. Euh, salaamaaleykum euh, madame Latouf maa ngi lay nuyu. Euh, di la di nuyu mboolem télé mboolem téléspectateur leeral TV yi nga xamante ni si ñu ngi lay seetaan di leen dalal jàmm ci post de santé Liberté 2. madame Niang eh, ñëpp xam nañ ni ëmb nekk na lu lu metti ci jigéen nekk na loo xamante ni dafa bari stress. Mm-hmm. ci noonu lañ bëgg a xam naka ngeen di gérer ñi nga xamante ni dañu won lor ñu ñëw di leen seet si naka ngeen di gérer accueil bi. waaw madame Latouf euh, ëmb moom comme ni ko ñëpp xamee moment bu am importance la ci dund jigéen mhm. te jigéen bu nekk aussi ñaan na yàlla jaar si te ëmb nag li ko ni li ko li ko li comme sonno leen dig li ko ëmb dafa bëri mhm. donc jigéenu ëmb bi bu ñëwee fi nga xamante ni si mooy structure sanitaire yi mhm. bu ñu fi fekkee li ñu war a njëkk mooy dalal ko rassurer ko wa euh, accueillir ko amit ci cadre boo xamante ni si cadre bu convivial lay nekk bu am confort ba nga xamante ni si xelam dina ci mën a dal mu nekk en toute sécurité. Mhm. mu xamante ni si fii ñu koy accueillir. elle mhm. sera dans la confidentialité. Mhm. mu xam ne tamit lépp lu mu fi wax ci quatre murs yi nii lay yem. et que ni euh, sage-femme ba mu fay fekk wala gynécologue ba mu fay fekk dina dalal xelam. ba nga xamante ni si lépp lu mu fa indi. comme question la wala comme njàqare la boo xamante ni si bëgg euh, am na ko ci ëmb bi. ñu mën ko ci jàppale accompagner ko ci ba mu dugg ceeg jàmm génn seeg jàmm salaam. d' ci noonu euh, lañ bëgg nga expliquer ñu docteur lan mooy consultation nataal waaw euh, consultation nataal nag euh, boo ko déggee mooy li ñuy wax musit mhm. mooy topp bi nga xamante ni si dinañ ko topp jigéenu wérul bi. Mhm. ci moment ba nga xamante ni si xam na ni wan na lor. Mhm. muy ca début grossesse ba ca ca ndoorteel la. ba ni ci ëmb bi di di di di jeexee. bu ñu koy wax ci lii mooy ci semaine ba mu ko wànnee lor. ba ci fa nga xamante ni si mooy ca njeextal la muy entre quarante semaines euh, de grossesse. de grossesse waaw. d'accord euh, de ce fait lan moom mooy euh, première partie consultation bi. waaw première partie bi nag mooy que ni jigéen bi moment ba mu xamee ne que ni si jël na weer mooy maanaam jigéen ba nga xamante ni si ma ngay fóot normalement boo xam ne chaque weer mu ngay gis fóotam te am na aussi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi jaxasoo ak góor. koo xamante ni si daal am na li ñuy wax rapport sexuel mm-hmm. bu toogee weer boo xamante ni si jël na ko fóot li mu war a def mooy ñëw ci structure de santé bi ñu mën a saytu yaramam xool ko ndax li tax gisul fóot boobu noonu ndax ëmb la ndaxte jigéen bu toogee gisul fóot rek première pensée bi ñu war a am première xalaat bi ñu war a am mooy que ni lii ëmb la su ko defee nag bu ñëwee ci structure sanitaire bi am nañ plusieurs moyens yoo xamante ni si plusieurs jumtukaay yoo xam ne mën nañ ko am mhm. mën nañ ko defar pour xool ndax effectivement loolu ëmb la ah, comme comme nan yan genre jumtukaay wax test de grossesse mhm. maanaam test bi jigéen ñi sax am na ñoo xam mën nañ ko defal seen bopp ci kër ga. donc test bu njëkk dañ daan constaté que ni dañ daan gis nii ci mag yi. Mhm. jigéen balaa mu daan bu toogaan jëlu benn weer day toog di xaar jëli naa ñetti weer. Mhm. pour soog a ñëw hôpital. Mhm. te nag li ci li li tax euh, pratique yooyu sax ñu ngi koy bàyyi li tax mu gën a am importance mooy jigéen bi moment ba nga xamante ni si toog na ni xam na ni gisul fóot. mu ñëw ci structure sanitaire bi bu ñëwee. li ñu koy njëkk defal mooy test de balaa ñuy def sax test bi daan ko examiner mooy maanaam daan saytu yaram xool ko mooy sur le loolu la ñuy wax examen clinique maanaam saytu ko ci digg boppam ba ci catu weewam. bu ñu ko xoolee nag ba pare la nga xamante ni si moo ñuy permettre ñu mën a confirmer dëggal ni maanaam ñun kat li ñu xool ci bi ñu ko seetee. Mhm. li ëmb la mooy euh, am na test de grossesse bi nga xam ne ci à travers tuur ndox bi mooy saw bi. Mhm. ci lañ koy mën a defee. bu weesoo loolu am na tamit li wax. bilan sanguin bi mooy deret bi la ñuy xool parce que am na lu ñu ciy wër. Mhm. ñu naan ko les bêta HCG moom la ñuy wër présence am. ci mhm. deret ji. Mhm. bu weesoo lool nag am nañ échographie moo xamante ni si moom mooy permettre tamit mun a confirmer que ni lii ñu wax ni li ñu gis nii que ni moo nekk ci ku jigéen ki. ëmb la. d'accord ci noonu bu ngeen saytoo def seen euh, consultation yëpp ba gis ni par exemple ku jigéen ndaw si kat dafa am benn jàngoro boo xamante ni moom ngeen détecté ci ci yaramam naka ngeen ci euh, jubloo. waaw euh, parce que tamit loolu mooy intérêt consultation prénatale. parce que mhm. consultation prénatale. booy xool c' est dans la prévention prévention mooy ngay xaar lu mooy ngay gàttandu lu ñëwagul. parce que ëmb bi bu jigéen bu ñëwee ba ñu xool ko bu gis ni bu ñu koy examiner may maanaam bu ñu koy saytu. bu ñëwee mhm. consultation parce que bu ñëwee daan xool. tension bi mooy natt tension bi fan la toll. natt mhm. tension bi dina permettre ñu xool ndax tension ba dafay yéeg. Mhm. parce que tension buy yéeg am na ay jeexital yu muy am ci ëmb bi. bu ñu paree si loolu aussi daan ko peese ñu peese ko xool poids bi nga xamante ni si actuellement ci la toll. Mhm. bu ñu paree aussi ci peese bi. Mhm. daan ko jëlal li ñuy wax périmètre brachial bi mooy xool ndax amul xiibon mhm. bu nekk ci moom. bu ñu paree ci ci ci ci ci examiner boobu daan jël taille bi parce que. élément bu nekk ak importance bu mu am. bu ñu jëlee taay bi parce que taay bi aussi mm-hmm. élément bu am solo la aussi pour ca feewu ëmb ba ñu xam nit ki. Mm-hmm. ndax nan la mën a ndax dina mën a mucc normalement mooy accouchement mm-hmm. normal wala ndax dina jox ñu jàpp def yeneen yeneen jéego. nañ ko laaj li jëm ci ay parents mooy ci papaam ak yaayam. ndax amuñu woon li nga xamante ne si mooy feebaru tension buy yéeg ñu laaj ko tey ji ndax amuñu woon feebaru xol. ñu laaj ko aussi ndax amuñu woon li nga xam ne mooy insuffisance rénale moom ci jëmi boppam ñu laaj ko ndax amul benn feebar boo xamante ne si doon na ko faju ba nga xamante ne si wanagul lor parce que loolu yëpp tamit daf ñuy tey jii nii ci ci su ci suivi ëmb bi. Mm-hmm. ñu mën a xam ndax kii kat mën na am tey jii yii doom feebar boo xamante ni si dina ko am. Mm-hmm. pour nga xamante ni si bu nga moment ba nga xamante ni si ñun dépassé na ñuy compétence ñu mën koo jël euh, éva euh, kii ko référé ko. jëkkër ji aussi mooy borom kër gi ki mu amal doom dinañ ko laaj dinañ ko laaj moom aussi ban euh, groupe sanguin la bokk. laaj ko aussi ndax moom it ci seen famille. Mhm. amul benn feebar boo xamante ne si daf ko am moom it buñ ko dinañ ko demandé ci bu ko accepté. Mhm. ñu xool ban groupe sanguin la bokk parce que loolu yëpp pour xool ñoom ñaar ndax seen ñaari deret yi. ànd na ànd na. donc loolu yëpp ci importance su. consultation consultation prénatale bi. ci la ci la ci la ci la ci la bokk. sa papa wala sa yaay amul kenn ku ci am li nga xam mooy jabet wala euh, feebaru xol wala feebaru rein wala asthme wala anémie. ñoom ñaar ñëpp kenn amu ci feebar. ñoom ñaar ñëpp kenn am kenn amu ci feebar boobu waaw. mooy sa ëmb bu njëkk te du. Ah. waaw mosoo am avortement maanaam ëmb bu yàqu. léegi nga am bilan dañ lay bindal dégg mooy analyse yi nga xamante ni si dañ koy xool dañ la koy defal analyse bi day permettre ñu xool natt deret bi fan la toll ci sa yaram xool tamit li nga xam ne mooy feebaru test demen euh, feebaru drépanocytose dinañ la ko dinañ la ko defal tamit léegi am tamit li nga xamante ni si mooy dépistage fi ñu lay defal nga jigéen ëmb bu nekk dañ ko war a xoolal yaramam pour xool li nga xamante ni si mooy feebaru sida dégg nga ñu koy wax yaa ngi koy dégg ñu koy wax waaw loolu jigéen ëmb bu nekk dañ la ko war a defal ci boo ko nangoo pour ñu xoolal la ndax doomu jàngoro bi mi ngi sa yaram wala nekku ci waaw léegi danga nangu ñu defal la ko waaw ñooñu njëkk defal tey tamit ñakk bu njëkk bi nga xamante ni si moo lay aar ci tataanoos yow ak sa doom tey ñakk bi tey boo ko defee tey bu amee weer maanaam tey yaa ngi ko def benn 21 su amee weer mooy le 21 bii di ñëw dañ la koy defalaat soo ko defaatee boobu tamit dinañ la ko defalaat bu amee juróom-benn weer boo ko defee si juróom-benn weer yooyu di nga ko defaat bu amee at nga defaat ko encore bu amaatee at mooy li ñuy wax mooy cinquième dose bi dégg nga boo ko xasee ba matal day tax même boo amaatee yeneen ëmb doo defaat ñàkk bi tant que amul fukki at dégg nga donc ma lay laaj tey tey lan ngay yëg ci sa yaram lan moo lay metti tey wala ndax démb wala bërki démb am na leneen loo doon yëg comme mettit ci sa yaram. yëguma sama yaram suufu biir bi moom moo doon metti. suufu biir d'accord mais bi muy metti gisoo ndox gisoo deret. daf doon daf doon metti. d'accord da ngay liggéey liggéey kër bu metti. liggéeyoo kon loolu suñu paree bu ma lay seet dinaa ko xoolaale dégg Euh, ci noonu est-ce que docteur dina leen faral di arrivé ngeen am patiente boo xamante ni mosul ñëw consultation par exemple dem na ba tollu diggante war a wasin mu ñëw fekk na nit kii kat deful benn consultation bu boobaa yéen en tant que sage-femme wala gynécologue naka ngeen di euh, jàppale ndaw soosu. waaw euh, li élément bi ci gën a am importance aussi tamit ci loolu. question bi mhm. nga wax mooy tamit nit ki même bu toogee sax. ba ñëwul consultation toog ba ca digg ëmb ba gaa nekkul lu ñu gënal. Mhm. waaye bu ñëwee tamit lu ñu mën a dab dabal daan ko dab dabal si si si si bi. Mhm. maanaam dinañ ko dinañ ko saytu xool mhm. ëmb bi ci fan la toll. maanaam li ñuy wax examen clinique bi xool ko. ndax am na lu ñuy permettre mooy di natt. butit biir bi. natt biir bi mën nañu cee jox approximativement ñu mën a xam ban ñaata weer ci la ëmb bi toll. bu weesoo loolu nag ñu defal ko li nga xamante sii. mooy échographie pour mu mën a confirmer pour mu mën a wax ni grossesse de ñaata semaine la wala nit ki mi ngi ci ñaata weer. waaw d'accord léegi bëgg nañ xam aussi euh, jigéen warul ñaata consultation la war a def ci neuf mois yi yu normal yoo xam ne warul ñàkk. waaw consultation yi jigéenu wérul bi war na def quatre consultations mhm. prénatales. Mhm. parce que dañuy wax femme ci ban période chaque ñaari weer mhm. te ndorteel la ba mu jëlee weer mhm. chaque ñaari weer bu ñëwee war na di def visite ba ca dernière ba mhm. léegi sax ministère de la santé euh, mu ngi bëgg ñu ngi nekk ci en phase di changer loolu parce que fi mu toll nii lu ñu bëgg mooy que ni jigéenu wérul bi chaque mois ñu gis ko ci structure de santé bi mooy chaque mois ca ba mu jëlee weer mu ñëw parce tamit moment bu nekk ci quatre CPN yooyu dafa am importance mhm. parce que CPN bu njëkk bi mhm. bu ñëwee comme li ma wax sànq première consultation prénatale mooy première visite bi mhm. bu ko ñëwee ba ñu confirmer comme li ma waxoon sànq que ni lii effectivement ëmb la dinañ ko examiner mooy dinañ ko saytu ñu xool ko parce que cër bu ñuy xool bu nekk ak importance ba nga xamante ni si moom la ci moom la moom la am parce que dañ commencé ci bopp bi ñëw ci bët yi ñëw si ween yi examiner ko ñëw ci biir bi loolu yëpp am na importance am ba xool ci tànk yi parce que tànk yeeg loolu yëpp dañ ciy wër ndax nit ki amul sadd-sadd bu nekk ci ci ci yaramam xool aussi ndax biir bi fi mu toll fi mu toll nii ndax méngoo naag âge bi nga xamante ni si am na parce que importance bi loolu am surtout ci jigéen ñi ma leen ciy ñaax mooy ñuy jàpp date ba nga xamante ni si moom la ñu mujjee fóot mm-hmm. mooy date ba nga xamante ni si mooy li ñuy wax premier jour des dernières règles loolu importance capital lam am parce que tey jii dina permettre ñu mën a déterminer exactement âge grossesse bi. Mhm. ñu xam ëmb bii nii kat euh, mi ngi ko commencé ci tel date mi ngi weer bii la gëj a jël fóot donc moment bii nii ci la ci la ci la war a ci ci la jël ëmb bi. donc bu ñu bu ñu xoolee bu ñu xoolee loolu ba pare ñu wëlbatiku aussi ci échographie bi parce que importance su échographie bi mooy non seulement dina confirmer que ni fii ëmb mi ngi fi. mais dina xool tamit ndax ëmb bi mi ngi ci place bu baax bi parce que ëmb bi dafa war a nekk ci biir butitu njurukaay bi ñu xool ndax ëmb bi mi ngi foofu wala ndax parce que ëmb bi mën na ëmb te fekk na ni ëmb bi nekkul ci biir butitu njurukaay bi du l'importance que ni jigéen bi moment bu mu jéllee weer mm-hmm. na ñëw parce que mu ñëw na dem ci structure de santé bi ko gën a jege mm-hmm. même bu fekkee dafa defal boppam test ba ca kër ga mu positif na ñëw ci biir structure de santé bi ñu mën koo saytu xool ko mën koo defal li nga xamante ni si mooy échographie bu mën a confirmer bu confirmer tamit ni ëmb la ñu xam ñaata doom moo nekk ci biir parce que weesu nañu jamono boo xamante ni si. jigéen ba day nekk bay wasin. di doog a xam ñaata moment ba muy wasin la doog a xam ñaata doom moo nekk ci ci ci ci biir bi. donc loolu aussi ci importance su capitalu. échographie bi. ci la ci la bokk am na tamit yeneen paramètres yoo xamante ni si dina ci bokk. bu weesoo saytu bi ñuy saytu yaramam am na tamit li ñuy wax ay examen clinique muy ay examen paraclinique muy ay bilan yoo xam ne mhm. dañ ko koy bindal pour mu xool deret bi lan ak lan moom moo ci nekk suñu paree aussi am na li ñuy wax tamit mooy la vaccination antitétanique mhm. boo xamante ni si war nañ ko ko defal mhm. pour jigéen pour mu aar ko li nga xamante ni si mooy moom ak doomam ci feebaru tétanos bu weesoo ci loolu tamit dinañ ko jox li ñuy wax moustiquaire imprégné à longue durée mhm. parce que moustiquaire boobu noonu daf koy permettre tey jii nii mu aar ko ci li nga xamante ni si mooy sibiru mhm. voilà ah, léegi mën nañ xam yan màndarga yuy loraate lañ mën a gis ci jigéen wérul waaw jigéenu wérul nag comme nañ koy waxee lépp loo xamante ni si lu mu gis la lu bokkul ci yaram bi mhm. dafa war a dem ci structure de santé ba ko gën a jege Mm-hmm. mooy tey jii nii jigéen bi bu toogee mu sentir ni yaramam dafa tàng. Mm-hmm. dafa war a dem ci hôpital ba. Mm-hmm. bu toogee di gis lu mel ni deret. wala muy gis lu mel ni ndox. muy xëpp deret muy xëpp deret dafa war a dem ci hôpital ba nga xamante ni si en toute urgence moo ko gën a jege. bu tollee foo xamante ni si doom ji commencé woon na di yëngatu mu toog tollu ci lu toll ci xaaju journée. Mm-hmm. bés bi mm-hmm. sentirul doom ji mu yëngatu mm-hmm. dafa war a dem ci structure de santé ba nga xamante ni si moom moo ko gën a jege bu toogee sentir ni ay tànkam dafa sadd wala mu xool ay yaramam xam ne yaramam dafa sadd dafa war a dem ci structure de santé ba ko gën a jege mu mu ngànnaayoo carnet waaw est-ce que des fois yéen di ngeen def recours ci yeneen entité yi par exemple nit ñëw seet si leen nekk jigéen wérul euh, ngeen seet ko ba pare yebal ko ci beneen fàll beneen wàll euh, médecin wala wala dara. waaw euh, parce que sage aussi dafa am ay limitam mhm. parce que tey jii nii sage-femme bi mën naa ni rôle éclaireur lay jouer. parce que tey mhm. jii bu nit ki ñëwee sa jigéen bi tey jii bu ñëwee mu saytu ko xool ni ah ëmb bii kat am na. Euh, feebar bu mu àndal maanaam am na tension bu mu àndal. Uh-huh. am na jabet bu mu àndal. li ko war mooy mu référé ko ci gynécologue. Uh-huh. ndax nañ la référence est une compétence transférée. Uh-huh. mu jël ko bind mu leer mu yebal ko ci gynécologue ba nga xamante ni si moom bu yeggee. moom la ca des moom moo koy moom moo koy continuer te tamit dina delloo tamit retour sage-femme ba wax ko nekk ah malade bi ma envoyé woon kat nangam ak nangam la loolu tamit ci ci suñu liggéey la bokk. dëgg la lan mooy njëriñu examen paraclinique. waaw examen paraclinique importance bi mu am. Mhm. mooy bilan bi nga xamante ni si dinañ ko defal jigéenu wérul bi parce que c'est tout un paquet maanaam euh, lu lu lu ñu lu lu ñu ëmb la. parce que tey jii nii bu ñëwee ci examen paraclinique yooyu dinañ xam nit ki ban groupe sanguin la bokk. Mhm. bu ñu xoolee ban groupe sanguin la bokk dinañ xool. Euh, tamit li ñuy dinañ def li nga xam mooy test demel test demel mooy ñu xool ndax amul li nga xam ne mooy feebaru drépanocytose mhm. bu ñu ko ko defalee aussi dinañ xool feebaru drépanocytose bi ban forme la parce que mhm. feebaru drépanocytose am na ay forme AS am na ay forme SS mhm. loolu yëpp dañ ko ci dañ ko ciy xool bu ñu ko xoolee tamit dañ ko defal li nga xam mooy test syphilis ñu xool ndax amu ko ci tamit nanguwaayu femme bi tamit ci buñ ko ko demandé expliqué ko importance bi mooy li nga xamante ni si mooy test VIH muy test sida dinañ ko ko demander aussi ba moom bu accepté ñu defaral ko ko fii ci biir bureau bi en mhm. toute sécurité en toute confidentialité comme ni ma waxoon sànq mhm. que lépp loo xamante ni si lu ñuy def la ci biir bureau bi lay lay lay yem mhm. test bi moo nekk nii ñu defal ko ko sur place résultat yi génn sur place ñu wax ko résultat yi lan moo ci lan moo ci léegi mu génn léegi da koy def léegi mu génn léegi day def test syphilis day def test test test muy test VIH bi te tamit bu ñu ko defee yàlla defee tamit mu positif dañ koy defalaat beneen test boo mhm. xamante ni si ca laboratoire ba lañ koy defee muy test confirmation mhm. su loolu tamit bu positive dinañ ko wan dinañ ko accompagner mhm. wan ko ni ko lii kat euh, du loo xamante ni si lu lay lor la ci boo toppee euh, ndigalu waa kër docteur yi ñu lay jox mooy maanaam di mën a mucc te sa doom doo ko wàllu feebar bi mhm. te tamit yow di nga am feebar bi dina nekk ci sa yaram ga mais doo nekk loo xamante ni si lu lay lu lay sonal lay doon wala lu lay lor lay doon mhm. ci boo toppee traitement bi mhm. am na tamit li ñuy wax test Euh, hépatite boobu tamit dañ koy defal femme enceinte yi. Mhm. dañ koy defal aussi test toxoplasmose ak rubéole. donc mhm. loolu yëpp ci ay test yoo xamante ni si la dañ koy defal jigéenu wérul bi. Mhm. lépp pour saytu deretam xool ndax amul benn feebar boo xam ne daf cee nekk wala loo xamante ni si luy lor la loo xamante ni si. mi ngi ci am na si. Euh, euh, docteur xam nañ ni jigéen wérul dafa bari ay contraintes. ci noonu lañ bëgg a xam lan moom mooy njëriñu lekk-lekk bu baax. pour ki nga xamante ni dafa won dafa won lor ak yan façon lekk la jigéen wéru wala lekk. waaw euh, madame Latouf question boobu am na importance parce que Sénégal. Euh, dañ doon constaté nii yenn jigéenu wérul yi dañ leen doon tere pour souvent naan ku ëmb waroo lekk lii ku ëmb waroo lekk lii. te mhm. une femme en enceinte jigéenu ëmb dafa soxla une alimentation bu baax. Mhm. riche équilibrée et variée alimentation boo xamante ni si ferñeent yi ñu soxla yépp yi mu mhm. soxla yépp te nga xamante ni si mën na koo jàppale ci ëmb bi mi ngi ci donc jigéenu wérul dafa war a ndékki dafa war a añ dafa war a reer. Mhm. te euh, lekk yooyu yëpp muy def na nekk ay aliments yoo xamante ni si yu am ay ferñeent lañ. Mhm. lu mel ni jën. Mhm. lu mel ni yàpp. yooyu yëpp ay kii la yoo xamante ni si ginaar femme enceinte bi daf ko war a lekk. te tamit lekkam. moom ni mu ko sentiree la koy defee. maanaam tey jii ni moom bu añee bu ndekkee. Mhm. balaa añ di jot war na lekk dara. Mhm. muy collation. permettre nañ ko mu grignoter. waaw bu bu bu reeree. Mhm. bu añ mu añee balaa muy reer mu lekk dara mais lépp tamit mu nekk ci alimentation bu baax. parce que ñoom mënuñu am na foo xam ne bu ñu fa tolloo ci ëmb bi yépp du ñu mën a lekk comme une personne bu dara jotul parce que lekk bi wàccu yaa ngi fi mooy li ñuy wax les petits de la grossesse mhm. wàccu yaa ngi fi yeneen yaa ngi fi donc importance bi nag mooy que ni tey jii moom buy lekk mu fractionner repas mooy maanaam mu xaaj xaajaat mhm. su lekkee tuuti daati mhm. dal ba mu lii mu jëlaat daati daati daati lekkaat kon lan ngay conseil jigéen wérul yi nga xamante ni dañu am boulimie waaw euh, ñi nga xamante ni si dañu dañu dañu dañu am euh, mooy day rejoindre rek l'alimentation mm-hmm. parce que tamit des fois du euh, dañuy am peut-être sensation de fin boobu du l'importance su collation yi mm-hmm. mais lépp rek ci lekk yi na nekk toujours lekk yoo xamante ni si bu équilibré lay doon boo xam ne ferñeent yi ñu soxla yépp am na fi fruits yi légumes yi mm-hmm. loolu yépp jigéen warul daf ko daf ko daf ko daf ko war a lekk Euh, ci noonu la ñu gis ni actuellement ñuy nekk euh, période boo xam ne période nawet la. Mhm. ñu bëgg xam euh, jigéen wérul bi période bi nga xamante ni mooy période hivernale yan conséquences la paludisme mën a andi ci li nga xamante ni mooy jigéen bi wann lor. waaw jigéen bi wann lor conséquences yi nga xamante ni si paludisme mën na ko ko indil bëri na. Mhm. waaye balaa may dugg ci lor rek damay ñëw ci. Euh, damay ñëwaat ci visite bi parce que paludisme boobu tamit am na vole bu am importance bu ñu ko jox ci visite bi parce que sànq ci samay ndorteelu wax yaa ngi dégg ma lay wax moustiquaire imprégné mooy sànke bu ñu nàndal bi que jigéenu bu wannu lor dafa war a tëdd ci sànke bu ñu nàndal pour mu mën ko aar ci sibiru bu weesoo loolu aussi bu demee ba toll si ñeenteelu weer bi wala ba mu sentir biir bi di commencer raf am na lu ñu koy jox muy sulfadoxine pyrimétamine mm-hmm. ñu koy wooyee SP jigéenu wérul bi dañ ko koy jox ci biir bureau bi ñetti doom lay doon yoo xamante ni si daf koy naan nga xamante ni si bu bu ñëwee ci ci ci visite bi moom lañ koy jox mooy lii waaw mooy ñetti doom yi nga xam ne koy aar ci sibiru te daal ci ci ci ci ci lii c'est waaw d'accord dañ ko koy jox mu mhm. naan ko ci biir mhm. bureau bi mooy li mhm. ñuy wax traitement directement observé su toogee ñu jox ko ko ci biir bureau bi mu naan ko bu ko naanee nag du benn yoon bii rek la koy naan dina ko naan ci lu toll si quatre fois mais quatre fois yi bu ci ne ñeenti yoon mhm. mais day am euh, intervalle un mois entreprise yi donc su ko naanee. à partir de ban ban période la ko war a à ah? partir du quatrième mois de mooy ñeenteelu weeru ëmb bi. d'accord bu ko dooree ci la koy wala bu sentiree que ni bu ñu gisee saytu ko xam ne biir bi mi ngi commencé raf. Mhm. wala moom si jëmi boppam ñu laaj ko ko. Mhm. xam ne biir bi mi ngi mi ngi mi raf ci lañ ko koy jox mu naan ko parce que lii ci li koy aar ci sibiru bi la bokk moom. Mhm. ak sànke bu ñu nàndal bi. loolu moom se c'est c'est impératif waaw loolu moom mënul ñàkk mënul ñàkk. d'accord mënul euh, jeexital yi nga xamante ni si tamit. comme niñ ko doon waxee sànq si biir bi mhm. mën na ko am ci jigéenu wérul bi mooy tey jii nii jigéenu wérul bi ëmb bi sibiru euh, bi mën na tuur ëmb bi mhm. mën na tuur ëmb bi te mën na def tamit mu wasin te waxtu wasinam jot mën na ko jox tamit lii ñuy wax anémie mooy mu mhm. ñàkk deret mën na ko tamit ñaanuñu ko yàlla mu yóbbu ko ba ci faatu kon nga xam ne sibiru lu jara moytu la lu jara fàggu la doom ji aussi am na ay jeexital ci con ci ci ci moom mhm. jeexital yi nga xam ne am na ko ci doom ji mooy mhm. tey jii nii mën na def ba xale bi màggaay bi nga xam ne waroon na koo màgg mhm. ci biir bi du normal moom li ñuy wax retard de croissance xale bi mën na ko am mën na ko def tamit ay malformation mooy que xale bi juddu ak yeneen jàngoro yoo xamante ni si wala yeneen mal ay malformation mooy loo xam ne daal normalul loo xam ne xale bi mën na ko judduwaale waa mm-hmm. mën na ko yóbbu tamit ñaanuñu ko yàlla ba xale bi loru ci biir bi mm-hmm. donc yëpp yëpp ay conséquences la yoo xamante ni si mm-hmm. ay jeexital la yoo xam ne mën na am ci ci ëmb bi ci jigéenu wérul bi bu fàgguwul ci sibiru loolu moo tax ñu leen di ñaan mhm. ñu respecté liñ leen di wax mesure yi mooy ñu tëdd ci sànke bu ñu nàndal ba pare di naan ñetti doom yi nga xamante ne si moom moo leen di aar ci sibiru d'accord ñun ñun société sénégalaise bi dañu làmboo ni jigéen wérul euh, moom kese mooy faral di dem hôpital mhm. ñu bëgg a xam ban njëriñ la jëkkër ji wala ki nga xamante ni euh, moom mooy bàyyi xale bi importance sam di dem en même temps di ànd ak ndaw si wala ne serait-ce que même defee benn yoon consultation. waaw loolu tamit question bu am importance la parce que. Mhm. Euh, euh, ëmb moom ñaari nit ñoo ko sekk. Mhm. te tamit moment bu. bu bu bu metti la tamit ci ku jigéen ki wante nag moment de bonheur la boo xamante ni si mbégte la boo xam dañ ko war a partage mm-hmm. ak lépp li nga xamante ni si moo ànd ci ëmb bi. Mm-hmm. donc ku góor ki présence am dafa am importance. Mm-hmm. parce que tey jii nii tamit. ak rôle bi mu ak rôle bi mu war a joué waaw parce que rôle bi mu war a joué tamit mooy rôle accompagnateur. rôle parent. parce que tamit information yi ñuy jox. ku jigéen ki ci ëmb bi moom daf ko daf ko daf ko daf ko daf ko war a xam bu tollee ci période bii mu ne ko ah yow kat tey période bii nii nga toll nangam ak nangam mu xool lépp lu nga xam ne lu mu ko mën a appuyer la. mu def ko. bu weesoo aussi loolu tamit présence am. ci moment yi nga xamante ni si ku jigéen ki ñëw na. parce que tey jii bu ñu ko joxee garab yi mu war a naan. dina ko war a fàttali bu ñëwee toog mën ko am nga am tel garab boo war a naan. mu ñëw jox ko garab boobu noonu mu naan ko. assister ko taxawu ko. donc ba nga xamante ni si sax parce que léegi ñu ngi jëm sax ci li ñuy wax ñu ngi nekk ci accouchement humanisé ni ñu koy waxee parce que accouchement boobu moom présence am daf ci am importance mm-hmm. mu ñëw mm-hmm. taxaw soutenir jabaram mm-hmm. euh, soutenir ki nga xamante ni si mooy yaayu doomam taxawu ko ba nga xamante ni si moment de bonheur boobu noonu bu ñëwee dañ koy partagé mettit wala li muy euh, yéeg dina atténuer dina dina atténuer dina wàññeeku ci noonu euh, docteur xam naa question bi moom ci la ñuy jeexalee mm-hmm. ñëpp xam nañ ni ñu ngi jëm ci li nga xamante ni mooy mois d' octobre te ku wax mois d' octobre rek sa xel war a dem ci li nga xamante ni moom mooy cancer du col de l'utérus ak cancer du sein ñu bëgg a xam ban mooy euh, njëriñam ak li nga xamante ni mooy importance su njëriñal sensibilisation bi boo ci mënee ñëw tuuti nga expliquer ñu ci. waaw importance su dépistage cancer ju col boobu moom euh, njariñam mhm. bëri na te lim mën a dimbali ak lim mën a fàggu tamit bëri na mhm. parce que tey jii nii jigéen bi bu ñëwee. Mhm. ñu ñu euh, xool ko. muy xool butitu njurukaayam. dina permettre tey jii nii bu fekkee que ni feebar bi dafa commencé tàmbale ñu teel koo jël. balaa muy ëpp loxo. bu dee feebaru ween bi la aussi pareillement ñu mën koo teel a saytu teel koo xool bu ko amee ñu teel koo mën a jël en charge teel ko orienté ci structure ba nga xamante ni si moom moo koy saytu moom moo koy moom moo koy jël en charge te tamit di ñaax jigéen ñi ñu faral jigéen ñi nga xamante ni si ñu ngi commencé nañu jur jaxasoo commencé nañu jur mhm. ñu dem di saytu seen butitu njurukaay ñu mhm. leen koy xoolal mhm. insisté waale aussi di wax ni tamit vaccination wu li nga xamante ni si mooy HPV. Mhm. ñu koy wax cancer du vaccin contre le cancer du col de l'utérus mi ngi disponible. ci mhm. structure de santé yi am na ci poste de santé yi am na ci centre de santé yi. donc ji xale yi jigéen ñi nga xamante ni si ñu ngi am juróom-ñeenti at. Mhm. ba jàpp fukki at ak ñeent. Mhm. muy de 9 à 14 ans. ñu nekk ay jigéen nañ leen yóbbu ñu ñakk leen. parce que ñàkk boobu noonu solo si mu am. bari na parce que dina prévenir. dina tax xale bii nii tey ëllëgi si biir. yow ñun ñi nga xamante ni si passé nañu âge. wàllu na suñu wàllu wéy na ñu mën a suñuy doom. ba nga xamante que ku sañoon tey jii nii sa doom. Mm-hmm. moo lay moo lay gën te tamit di nga ko bëgg mu màgg. si mm-hmm. jàmm ak salaam ba ëllëgi si biir li ñuy wax feebaru cancer du col. du ko sonal. donc mhm. may ñaax parent yi. Mhm. ñu yóbbu seen doom yi ci structure de santé yi. Mhm. ñu ñàkk leen li nga xamante ni si mooy HPV bi njëriñ kese moo ci nekk. am na solo euh, ci noonu la ñëw tëj émission bi ñu bëgg laa ne docteur lan mooy sa dernier mot. waaw sama dernier moo nag dama koy def focus ci li nga xamante ni si mooy le carnet. carnet carnet carnet de santé de la mère waaw carnet de santé de la mère du nouveau-né mhm. de l'enfant et de l'adolescent mhm. donc carnet bii nii mhm. jigéenu wérul bi lépp lu mu war a xam ci ëmb bi mu ngi ci carnet bi même ñi nga xamante ni si jànguñu am nañ ay images yoo xamante ni si moo koy illustré carnet bi du pour buñ la ko joxee rek boo yeggee ci kër ga ko denc <laughs> góor ñi tamit nañuy lire carnet bi bu sa jóge jabar jógee wisit nga ne ko jox ma carnet bi ma mm-hmm. xool mu ne ah yow kat fii nga toll kon boo demaatee sage femme bi léegi lii la lay defalaat mm-hmm. ndax lépp mi ngi ci gis nga mm-hmm. signe de danger yi ma la doon wax lépp mi ngi ci donc explication bu leer moo ci nekk bu leer a leer moo ci nekk gis nga lépp lu jëm ci wàllum lekk jigéenu wérul gis nga li ñuy wax ci supplément li ñuy wax sànq mooy fer bi jigéenu wérul wala jël SP bi ma la doon wan sànq dépistage bi ñàkk tétanos bi di tëdd ci sànke bu ñu nàndal bi mhm. alimentation bi garab yi eh, eh, eh, lekk yi nga xamante ne yëpp jigéenu ëmb war na ko lekk mhm. lépp mu ngi si carnet bi mhm. donc jigéen ñi ñu ngi leen di ñaan ñuy ubbi seen karne yi di ko xool te bañ koo def meuble waa di ko di ko di ko di ko di ko di ko gëstu daal am na importance ñoo ngi lay remercier soxna Fat Bintou di rafetlu ñëw bi ngeen fi ñëw tey fii ci poste de santé Liberté de bokk ci district centre. téléspectateur Leral TV comme ni ngeen ko gisee lii lañ leen indiloon tey ci Leral santé di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen numéro bu bees incha allah.